sant di ko gërëm bu baax depuis euh, Yoff elle se nomme euh, Mariem Mbaye mhm. euh, gis ngeen francs CFA moom lañ ko jox comme ndéwénal mu tànn région bi nga xamante ne mooy Tambacounda bokk ci région yi nga xamante ne ñoo nekk zone trans frontalier mhm. ak bi nga xamante ne frontalière bi nga xamante moom moo nekk ci wetu ay ñoom Gambie yëpp mhm. ndax Tambacounda jege na leen lool donc ñu ngi koy delloo njukkal bu baax ñu continuer 88 628 65 65 88 676 05 05 88 676 03 ñu ànd ak yéen seetaan benn vidéo histoire de se détendre euh, one lyrical featuring euh, Lena ñu dosé ko kon bàyyi ma dosé Awa dosé eh, euh, Mado Diaw waaye dosé Diarra Istilena ànd ak Lissou te tout de suite foog ñu jublu mu kër Africa United fu ñu mën a nekk bi laay foog ñu jublu mu kër réew mi ci nekk am na seen aada fu ñu mën a nekk bi laay foog ñu jublu ko amin tuuba ak si lim bi ko doxal sekund ratusan sekund nyap ratusan sekund sesekund wal bertikun ratusan sekund sekund sekund nyapa ini nyapa ini satu pakai rat eh yo ko ala di bayi Let's go, let's go. yaa leen mën jaarul de ba yoo xul ci kaw yoo xul ci kaw régleel say problème mu kaa yaa leen mën yaa ëpp doole Et voilà, très bien, petit bonhomme de chemin, il s'appelle One Lyrical, euh, en featuring bien sûr avec sa dame, ah, Lena, Lena, euh, dans Doseko, oh euh, ça fait en tout cas ah, l'actualité, ça non, fait le buzz mais, euh, mais, qui, sur la Linda Miel, from mm. Linda Miel to Doseko. Machallah. <laughs> God Linda Miel. baby maaraw lem. waaw si sa xel la day dal di par rapport à. Euh, nee na ko sa xol ak sa. sa xol ak sa. sa sa ah trois points de suspension très bien voilà 88 628 65 65 88 676 05 05 88 676 03 03 mention spéciale en tout le personnel du groupe Futur Média a baax te baalu leen àq ne ñu ngi koy liggéey mhm. euh, sur le paysage médiatique euh, di ko jëlee fii ci réew mi waaye di ko yóbbu un peu partout bu ñu limee dinañu juum waaye cadreur yi kenn amul Euh, ñi nekk ci wàllum son bi ñoom tamit gàcce ngaalaama rawati ki dool yi les réalisateurs euh, parce que ñoom ñëpp en tout cas euh, c'est des hommes en tout cas yu jéggi dayo yoo xamante ne li ñuy def ñëpp a ngi ci kontaan euh, ngi leen di delloo njukkal bu baax a baax bu ñu fa jógee nag li ñuy def mooy mado xam nga jamono ji dañuy mhm. wax naan ujaaj euh, yaa ngi waaj a ñëw ah te bu ñuy waxee ujaaj yi dañuy wax wàllum sërica mm. te ku wax sërica xel dina dem ci fàllu kol ah léegi nee nañ soxlatul ngay def ay 23 kilos di di sa sa bopp di sona sa bopp ñu naan valise yi réer naak réerul Fallou Col bi mu ñëwee fi mu ne nii ci la noppal jaam ji rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy ujaaj yi dem ba ñëw ça fait des années durant bi mu sampalee boutique am ba ca H&M ba tey mm-hmm. képp koo xamante ne boo demee tey màkk da ngay def sa farataak def si la waaye booy ñibbi si ci moom mi ngay jàdd wala balaa ngay dem sax ci moom ngay njëkkee naka ngeen di ko xamee ñu dem xool élément bi su boobaa di ngeen xam ni que Fallou moom moo jàppalee ujaaj yi ci réew téléspectateurs ñu ngi leen nuyu bu baax a baax waaye itam di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax tey nag bu ma gisee ah, xam ne tey nag may ajaratu béti waaw dëgg du neex ndax ñi may seet si tey ñoo ko waral muy waa établissement ah, Fallou Kol maa lay ziar bu baax a baax sëñ bi Nour. soxna Béti ñu ngi ziar. noo def naka euh, boutique bi. Eh, ñu ngi sant yàlla xanaa di préparer ujaa ji rek. Mhm. waaw di leen wax ne leen waa seen seen seen boutique la xam nga yéen ak Fallou Col moom yàgg ngeen trop sax. Mhm. soxlaatul ngeen di jënd seen bagage màkk mhm. ngeen ñëw aéroport ñaan la réer naag lii ak lii la quoi surtout boutique bi am na en ligne beeg yooyu yëpp am ku ñëw daal di kontaan. Mm. maa ngi nii di doore ñëw man ka damaa si damaa France sama kër sept di ma tee fii laa fi fii mbaa yaa rafetub goo googu forme màkka waa yow dama ne la daray coono dund ma ko màkk li may ñibbi si sama yére kepp laa indi fàll ko soo ñëwee loo soxla woon màkk di nga ko fàll kon daal fàtte bagage ak daa ëpp ñu wàññil ma kol gii daala ma topp màkka ak eh! mbaxana mi mi dama kontaan di ay laay Fallou avec Fallou Coll. ah tout possible. kon kay Fallou Coll solution lan naan ku topp ku raxas ba fegal ba dëppi ndagam bàyyi fukki ba rusi ndawal fooy añe Fallou daa rusi bu yàgg. Oh, nee naa la boo bëggee dem da ngay toog ci lu jóg boo toogul ci lu jógul émeri téléphone yëkkati. ay la xam lu ma lay sama sëriñ maag yow seede seede la tànk ak fii nga ma koy joxe. waa léegi nag man danaa la ko jox. waaw waaye boo bëggee gis ujaaj bu ne. Ah. ñu jox la sëriñ ca. waaw jërul ngay paas di dem fu ne kar leen fii rek ana ana sëriñ ca. buntu taxaw kon yéen ujaaj yi nekk te da ngeen di ñëw sol seen yére jënd lépp. jox naa la kon ay waay ay waay jox naa la baxana ay waay jox naa la jàllaabe ay waay waaye tabarkàlla xanaa avec Fallou kon tout c'est possible ah oh! Fallou rek يا حبيب سلام عليك صلوات sëri ca li nga xam ne moo di ñuy jóge màkk waaw nga ne la bu am rek dama fay dem toog di xaar sëri ca macha allah ay ca Nuuru mën nga ñoo jox loolu nga xam ne moo di numéro yi nga xam ne buñ ci wootee rek dinañ jot waa Falloukolle waaw suñu numéro fixe bi 33 la 825 98 02 bu dee numéro orange bi 77 422 46 00 ak 78 196 45 beneen numéro bi 77 la 744 13 52. képp ku soxla ay bagage yu baax rek pour ujaajeeg yooyu yëpp mën nga ñëw fii daal ci Fallou Koll. waaw fii boo fi ñëwee macha allah di kontaan quoi mm-hmm, mm-hmm. waaw. merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci kóolute gi ngeen am ci li nga xam ne moo di euh, seetu bi waa euh, établissement Fallou Col établissement Fallou kool nag ñoom équipe lañu macha allah xale yi bi ñu ñëwee ba léegi kenn toogul ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax baax a baax di remercier Fallou di remercier Nourou ñoom ñëpp ñi fi nekkoon ñu ngi leen di jëfal lu bëre bëree bëre bëri Fallou Col wax naa leen ne du feneen gis ngeen ma ni ma ajaratu nii macha allah lii robb yi nga xam ne dafa baax ci julli yeeg yooyu kon boog ñëw leen ñëw leen fii ci Fallou moom moo ko yor macha allah rabbi moo ko yor yéen waa seetu bi xam ngeen li may wax yéen mbokk téléspectateurs yi xam ngeen li may wax mais Fallou Koll nag di la jaajëfal bu baax a baax ci les amis de Béti bi nga xam ne moom nga ñëw dugg si man samay xarit dañoo am maanaa non dañoo meilleur macha jërëjëf euh, Fallou Col ñu ngi koy delloo njukkal bu baax suñu xel dina dem ba tey ci suñu rakk suñu xarit ndax ñuy ñaanal euh, ñu koy ñaanal fa mu nekk gënal ko foofu fa mu jógee mu di Marianne Silva moom mi nga xamante ne euh, bu ñuy dégg Fallou Col ah, moom bokk na ci ñu ko yëkkati bu baax a baax mm-hmm. waaye di delloo njukkal bétti ci laala faal ci liggéey bu mucc ay bu am solo bi nga xamante ne boobu ba tey mu ngi koy liggéey ñu ngi koy déwénati bu baax baax ak fu mu munti ne di leen fàttali ba tey vous êtes dans Seetu Sénégal le rendez-vous inédit qui se les après-midi du lundi au jeudi à partir de 17h 18h ñu bégal leen sargal leen cuuraayoo leen fàllu kol nag euh, nekkate yemul rek ci kol mhm. dafa polyvalent parce que lépp li nga yite woon nañ ko mu jëm ci wàllum sërite ujaaj yi daf koy daf ciy yëngu effectivement lu jëm ci ndoxu sam-sam kaalu comme ni ko waxee waaye yéen yi nga xamante mooy tissu yi ñu soxla ba ci darab yi nga xamante sax da koy laal euh, pour teeru nit yi tamit loolu yëpp daf koy jëfandikoo mhm. kon ku fa

Euh, mu ngi foofu ca Sicap Liberté 1 euh, nekk ci ginnaaw stade euh, Demba Diop mhm. jege loolu stade Marius Ndiaye donc ombilico meuble dem leen ngeen xool ay produits yu mucc ay mu ngi fa ba fa jugee nag ñu doxantu ànd ak moom mi nga xamante ne wurus lay waxtaanee ànd ak moom mi nga xamante ne ngalam lay waxtaanee mhm. ànd moom mi nga xamante ne or kese lay waxtaanee jaar style na sopp ko lool fonk ko lool waaye tamit li sun jaw fonk ko sopp ko lool rawti ki dooli ki nga xamante ne mooy Mado Jaw nga xamante ne mu ngi langal euh, li nga xamante ne moom mooy ngalam kon nañu ànd ak moom mu waxtaanee ko kooku mooy Awa Gaye Awa Gaye ñu dellu ca Gambie wala ñu des ca Sénégal nga waxtaanee or Chine muy gold euh, dañuy des fu nekk mhm. Euh, dañuy des fu nekk euh, ndaxte euh, or dafa international mm-hmm. or dafa nekk loo xamante ni indo yi mm-hmm. yaa xam asian european african whatever nit bu nekk daal bëgg na or foog naa mm-hmm. or dafa ànd ak nit ba tax na tabaski bii nii boo xoolee ñi takku or bari na ñoo xamante ne amuñu njëgu or vrai bi sax couleur or la ñuy jël léegi man dama commencé jaaxle ma commencé tiit tuuti est-ce que or nekkul commencé wàcce Euh, li nga xamante ni mooy euh, euh, kii bijou blanc parce que ku nekk bëgg na takk or boo xoolee comme exemple tabaski bi waa kii sama photo ba la dugal bi. waaw lii ah? seen <laughs> gold seen gold takkal Euh, te euh, soo xoolee célébrité yu bare bare Mado euh, takk nañ or torop tabaski bii nii ah, mu doon lu tendance mi ngi noonu ah, Mado Diaw ah, moom itamit nekk koo xamante ne takkati or la te xale yi di xool si ñun parce que bu njëkk ba ñi daan takku or vraiment mag ñi ñoo ko daan takk wala il faut nga am benn alal bi benn somme bi xoolal Bijou Ndiaye euh, benn somme bi benn xaalis bi euh, pour nga mun a takk or bañ na ko ba boo takkee or dañuy naan kii borom xaalis parce que daf lay yokk benn affaire léegi yow mi nga xamante ne yaa ngi si côté euh, bien-être mhm. xam nga ni or bu dee sagar nga sol sax nga teg si or da koy valoriser ba doon effectivement or dafay jox dimbali nga xamante ne moom moo di sañse moo tax comme ni ñu ko waxee bu fekkee nit ñi amuñu ko sax léeg dañuy préféré jël bijou yoo xamante ne dañ koy sóob sóobu or waaye tendance bi xew si jamono dañu gis ni que léegi xale dañ ko takk ba dañuy sas sax seen yeneen moroomi nawle comme hmm. jigéen ay xale yu ndaw ñu góorgóorlu di liggéey di dem te li ci gën a neex léegi mooy jaaykat yi ni nga ko defee parce que yow je pense que sax ci ki lay jaay dañuy aar que ñuy jaay tamit ñoom ñoo ko gën a noppal ah, ndax xam nga ci dara ndax ki lay jaay je pense que noonu nañuy defee ci moom euh, ni ñuy euh, du du comme si moom rek sax waaye si ñeneen ak ñeneen hmm. euh, jaaykati or yi comme ñun exemple ñun ñuy liggéey télé dañuy jàpp torop si li nga xamante ne mooy suñu ay sa waaye tamit dafay nekk benn business boo xamante ni euh, euh, dañuy fay wala ñu jox ñu ko en or euh, at the same time ñun ñu fësal leen and stuff like that loolu ñu ñi nga xamante ñu ngi si média bi Mado dama bëgg rendre hommage ñi nga xamante ne surtout jigéen yi nekk média bi mooy dañu tax ñëpp ñeme or dañu tax même ñi nga xam ne dañuy tëgg or bi dañu changer motif or bi parce que xoolal lii nii lii yëre tubaab exactly dañuy jël ay xoolal waaw dañuy jël ay designer yoo xamante ah. ah célébrité yu mag yi ñoo ko naan takk ñu takk ko nga ñëw yi nga am sa benn somme di ko fa dajale euh, ba kii xoolal euh, chagwaar bi madoo takk bu njëkk bi amoo woon sañ-sañu euh, takk li du doxantu ak moom bu njëkk bi danaa na agressé ndax or waaye léegi agresseur yi xoolatuñu or c'est que bari na seen ba tellement que danga dañ lay sàcc tey bu subaa nga dem jëndi or boo xoolee nekkut nekk célébrité yi rek ay takk or tabaski bi xale yu ndaw yi takk nañ or mag ñu takk nañ or waaye ñi nga xamante ne ñu ngi marché HLM di jaay lu mel ni or mm-hmm. Mm-hmm. te fekk du or mm-hmm. euh, ñoom itamit ah, da ngay dem am sa 1500 2000 francs ñu takkal la lu rafet euh, nga ñëw toog mu daal di la sagal so loolu laa indi woon tey affaire or comme temps bi daf ñoo xoj beneen yoon dinaa indi histoire or euh, fu or jógee ko fu mu ko ak lan moo tax chaque année or di yokku waaw prix bi day yokku chaque année très bien merci beaucoup Awa ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax rendez-vous très prochainement inchallah toujours sur la télévision Dia mention spéciale à Mado Diaw moom tamit ñu ngi mm-hmm. koy sant di ko gërëm bu baax euh, ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne mu ngi ko fiy liggéey euh, booba tey gis ngeen euh, accueil bi ak ni muy composé woo ñoom leen di sant di leen gërëm Awa ak Mado Diaw di sant di gërëm bu baax l' équipe de production l' équipe dynamique composée bien sûr de petit ñu ngi koy jaajëfal bu baax petit Ndoy Ndoy Lebu borom 316 villa yi ndax HLM la dëkk cité boobu composé na ci wàllum photo wàllum digital Cheikh Tidiane ñoo ngi koy jaajëfal bu baax Cheikh Tidiane bu SSP uh-huh. waaye di sant di gërëm bu baax kat yi euh, di remercier Nabou Aïs ci son bi uh-huh. et bien sûr le grand le grand le grand le grand muy waa réseaux sociaux waaw su ma waxee su ma waxee Cheikh Tidiane rek jàpp naa ne wax naa réseaux sociaux parce que Cheikh Tidiane mooy digital am na ku wax léegi ni message ah ñu nekk ci Facebook les internautes oui les ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ci liggéey bi et voilà euh, Demba Gueye sa femme Abisata Yacine Gueye euh, madame euh, Diallo Bibiche euh, mhm. daba nekk ca Padois Buldeuse maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax mhm. euh, donc mbokk portez-vous bien restez toujours avec nos programmes sur la télévision à Futurs Médias soir de campagne présenté toujours avec El Hadj Ngagne Ndiaye ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne moo ngi koy def macha allah di mhm. waxtaan ak politiciens yi ñu wax lan mooy seen programme ci wàllum législative yi waaye tamit di sant di gërëm bu baax xibaaru mbarax dina ci topp ak version française d'ici là portez-vous bien nos programme Télé Futurs Médias tout de suite ñu jeexalee ak euh, spot bu am solo bi nga xamante ne mu ngi sénégalais yi xale yi ñoo ngi koy xaar à partir du 16 juillet jàpp 3 septembre 2022 seen petit galet euh, mu indi leen version bu bees sama fun show euh, foofu ca Île de Gorée incha allah donc xale yi nañu ànd ak parents yi ñu ñëw kafooree ndax dañu ne été lañu ne te ku ne été ne donc merci beaucoup Awa Gueye merci à Mado rendez-vous très prochainement inchallah toujours sur les antennes de la télévision Futur Média Presse Art présente le Summer Fun Show nouvelle émission sur les plus belles plages du Sénégal ay yendu yu amul fenn ay surprises yu bëri dans Summer Fun Show pendant deux mois huit équipes nar a jongante avec des jeux yu métti. sama fan show. sama fan show émission bu bees tàq concept bu musul am ay innovation yu bare bare bari ci plage yi gën a rafet ci biir Sénégal dama ni ay équipe yoo xam ne ñoom ñooy compétit célébrité ak sénégalais bu mu neex mën ngaa bokk dem leen inscrire ci suñu ay page est-ce que pare ngeen. et gars yi yëg leen ambiance courage esprit d'équipe seen seule arme pour rester dans la compétition et gagner seen petit gàll ci